mbokku internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun dalee nag jàmm ci li gën a ci réew mi dañu koy door ak lu ñeel gouvernement face à la presse tey nag la amal ñaareelu conférence de presse boobu ca building administratif Mamadou Dia jëwriñ bi nga xam ni moom la ñu dénk ko wér gi yaram di Abdoulaye Diouf ak naataangoom bi gàlloo rek wàllu ko mbay mi ak équipement rural di Moussa Baldé ñoo fa teew tey rek yokk bu gaaw rek lañu ci nemmeeku mu mel ni kon jëwrin bi xam na rek bu baax a baax tolluwaayu mbas mi ba tax mu ni dañoo war a nangu ni ñaareelu ko vague am na loolu nag nee na moo waral rek ba ñu tralaata xeex bi ba tax ñu jël ci rek ay dogal yoo xam ni askan wi dañoo war a dëppoo ak moom mu xamle si ni ba tey jii rek jàngoro ji kenn xamagu ko waaye loolu nag warul tax rek nit ñi di bàyyi ndeku ci mesure barrière yi ba tax mu ni kenn dootul baale ci loolu ku nekk na nga dëppoo ak diglewu waa kër docteur wàcc na nag li nga xam ni moo di takkum masque yi mu dekk ni nag bu ko jaree teree sax ñu andi ay daan yu tar ngir rek nit ñi mën a dëppoo ak mesure yooyu ñu jàll ci Moussa Baldé di jëwriñ bi nga xam ni moom moo gàlloo wàllu ko mbay mi ak équipement rural moom nag àdduna ci njaayuma gerte mi li mu ci xam ne rek mooy ci fukki fan ak juróom-ñett dong jot nañoo récolte récolté lu toll si juróomi junniy tonu gerte campagne bi rek xaajul bay jeex ndax ba tey ji récolte bi jeexagul waaye xam ne na ni campagne yu njaayuma gerte mi door nañu ko lu jiitu nag ndorteel bi nga xam ni moom lañu ko jàppoon te bu ñëpp nekk amee ngëm-ngëm bi njaayum gerte mi dina kawe suñu njortu ba tey mu ni moom Moussa Baldé amul nag benn doomu gerte boo xam ni uh, daal dinay dugg rek ca bitim réew uh, ñu jàll ci nomination ya amoon démb ca conseil des ministres ba uh, si njiitalu njiitu réew mi Macky Sall foofee ca palais de la république madame Khoudia Diagne nekk conseillère ci mbirum aada tabb nañu ko njiital aar foofee ca ministère de la culture ak communication Cheikh Germaine Coly nekk itam conseiller ca wàllu rek aada tabb nañu ko njiital cinématographie monsieur Abdoulaye Doul di jàngalekat wàllu ko tàggat yaram tabb nañu ko njiital compagnie du théâtre national Daniel Sorano keneen ku ñu nominé euh, mooy monsieur Ansoumane Sané moom kon moo fa wuutu ki nga xam ni moo di monsieur Keysi Bousso monsieur Keysi Bousso moomu moom mooy njiital léegi conseil administration de la compagnie du grand théâtre boobu ba tey monsieur Abdoulaye Racine Senghor nekk jàngalekat ca lettre moderne moom nag la ñu tabb njiital conseil d'administration du musée des civilisations noires ñu woyal àddu si ñaawteef yi nga xam ni moom la ñu demee yi fan yi loolee nag tax ba CNRA di kuréel bi nga xam ni moom mooy saytu ak jubbanti programme yi ñuy fësal ci audiovisuel bi daal di yëglu ndax xamle na ni dootu ñu baal kenn rek kuy def ay bêtises ci audiovisuel bi te rek ku ko defati dàqu ñu sax ba yóbbu ko ci yoon ba tax nag moom Babacar Diagne ne faaw rek ñu yaraat te ja te jàngalaat ndaw ñi te loolee liggéeyu ñëpp la waaye CNRA xamle na ni baal na ki nga xam ni moo di animatrice boobu di Sofia ndax jéggalu na jéggaloo te rek bëgg jël yoon bu baax bi dañu ko caa war a jàppale ndax nit mooy juum Pape Cheikh Diallo itam jéggalu na ci kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko jëm ci wàllu ko racisme ñu jàll ci coowal centre de redressement yu moo du Kara yi moom mi nekkoon jiital centre yooyu jaajëfal na bu baax a baax ñi ko taxawu ci coow li nga xam ni moom moo ko toppoon moom nag ca Facebook la fësalee ni ñaar fukk juróom-ñett nit ñoo xam ni jàppale nañu ko nekk euh, li jaaxal ñëpp nag mooy gisuñu turu ki nga xam ni moo di Ahmed Khalifa Niass ak maam Makhtar Gueye euh, bu Jamra euh, nga xam ni nag ñoom dañu ko doon jàppale dañu ko fësaloon depuis nag ci ndorteelu ko coow li ñu woyal àddi ci animatrice bi ak présentatrice di ndey Ndack Touré ca 2STV moom nag ca benn émission vous et ba mu doon amal da caa xam leen ni boobu mooy nekk émission wam bu mujj ba muy amal foofee ca 2S mu xam leen ni daa feebar te loolu moo tax rek day jël recul ngir noppalu mu jaajëfal ñi nga xam ni ñoom ñoo ko jàppale rawatina madame Ndiaye euh, nga xam ni nag nee na yaayu ñëpp la si noonu nag itam mu xam le ni boo nekkee fenn di liggéey xalaatal bés ñëw rek nga daal di fay jógee ngir nekk ca leneen te xam na ni balaa yàgg dara dinañu ko gis moom ndey ndaak ci yeneen liggéey ñu jàll ci animatrice yu TFM yi euh, ku ci mel ni Mado Diaw euh, Besel Baas ak Dërëm gis nañu leen nag ñu fësal ay photo ci moddu Haalpulaar loolu nag nekk lu internet di rafetlu jamono yi exporter suñu culture ak suñu aada dëkk ndax gis nañu même ci série yi nag ñoo ngi tàmbalee rek sël cosaanu Sénégal kon mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen tey ma jox leen dig daje ëllëg incha allah waaye laata boobu wéyee leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàtte ba suñu cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf